pàccoo bi France doon pàccoo Sénégal Afrique sax mën nañ ne waaye rawatina sunum réew mi nga xam ne nag ñun moom la xam te fi la ñu dëkk dafay continuer di woy ba léegi am déet dinañ si dikk comme ni ñu koy faral di defee ak ay jàngat yu ama am solo te pertinent régime bu bees bii nga xam ne nag daat na ñuy ñëw te li ñu doon gëmloo Sénégalais yi te ñu jàpp ko ne nag ba tey loolu lañ gëm te mën na nekk mooy ñu nag France moom ak lu mën di xew lu demee na mu daan demee comme régime bi nga xam ne jóge na fi gouvernement bu bees bi euh, seen bëgg-bëgg mën nañ ne ñëpp xam nañ ko mooy Sénégal ak lu mën di xew muy réewum France beneen réew lu mën di am rek ñoom nañuy gis seen bopp si pàccoo bi nga xam ne ñoo ngi koy faral di gis si réew Afrique yi loolu dinañ si dikk ak ay révélation yu amaam solo te pertinente ak ay jàngat comme ni koy faral di dafé bu len faté abonné bés cloche de notification bi vidéo bu ñu duggal ngeen daal ci mëna jot ya ngeen jëf ñu daal di détecter le kàddu yi ngeen teewlu. concernant ay affaire Russie yeeg euh, naka lañ koy waxatee. Niger na nañu Russie ak France nangam nangam gis man man je ne vois pas la France comme un bon allié. lool nak am nga ci sa plein droit né carrément nangam mais je te donne juste un exemple comment la France a su gérer la guerre du Sahel Mali la fa am si la euh, France était digne en tant que d'un allié, comme il le prétend dire, dire du Mali, am ay liens yoo xamante ne historique loo xamante ne maanaam nit mënut la wax ne nangam nangam la te du doon loo xamante ne moom ba xëy suba maliens yi dem ba ne leen halte nous ne voulons plus de vous c'est qui y a problème c'est qui y a problème lan moo tax tey jii panafricain yooyu ngay wax ñu daal di taxaw di xeex France mais carrément France sa doxalin nii ci Afrique da nga ko war a xoolaat parce que lii c'est pas la meilleure ba dem jaral leen la de ñuy boycotter tout ce qui est de la France donc il y a un problème man je me dis que la France si certes peut être un allié mais pas allié bi nga xam la doxal wala c'est politique bi nga xam ne la doxal de donc il faudra revoir et recapitaliser loolu ba nga xam une même aspiration jeunesse léegi France et États-Unis c'est le système capitaliste ils sont là c'est basé sur la concurrence et la loi du marché ñoom ci seen jëm bopp loolu la ñuy tënkee seen ay mbir si les Maliens dem ba wala boog ñun lee Sénégalais ñu daal dem ba gis ne par exemple li ñu soxla ci sécurité Russie moom moo ñu ko mën a garantir mais bien le Mali en a fait autant parce que gëm na ne carrément France pendant douze ans nga nekk sama dëkk man nga naa ma terroriste yaa ngi fee ba pare di xeex ba pare naa ma yamal fii au même moment yaa ngi exploité sama ay richesse yëpp ko di ko yóbbu ci sa dëkk ma dem ba découvrir la réalité am naa droit ne lii ngay def man ni c'est pas sincère yow boo ma dénkoon sa oto ne ma damay liggéey chaque mois nga di ma versé heure boo xëyee ma daal di dawal teg kii nga ne moo amee booy chaque mois nga ne moo amee booy versement bi nu mu demee ma daal di ñëw naan la non c'est-à-dire xam nga oto bi dafa xawoon paan ak nangam ak nangam kii de boo demee ba gisatoo rentabilité ci man da nga ma naan delloo ma sama oto ma daal la koy delloo nga ut keneen koo xam ne moom moo la gën a mën a liggéey c'est ça mën naa gëm France gëm États-Unis mais man gëwuma leen parce que xam la moo tax pour diverses raisons te Mali won nañu exemple bi c'est parce que ce sont des opportunistes réew bu ñu mënti dem dañuy fexe instrumentaliser la de sorte que yow dangay mën a doon toog ci seen ay pooj ñu lay dicté ngay daal di def ba pare te yow doo moomal sa bopp dara lii mooy wax ji. France sax laa la wax de dafa am ay alliés États-Unis dafa am ay alliés France ay soldats américains dañuy dem biir France di leen entraîner sur des choses de nouvelle technologie parce que maîtriser guñ am na loo xamante ne biir France la ne te les pays membres de l'OTAN France dañ koo gën a compétent ñeneen ñi ba dañ leen koy entraîner. di leen ko jàngal di nga maanaam dans le domaine sécuritaire il y a aucun lien avec la souveraineté sécuritaire amul amul benn lien boobu man ci li ma jàpp xam nga moo par exemple tey jii yow mën nga di am ay partenariat militaire kooku di la jaay ay arme di la ko fournir mais est-ce que am na dicton ci sa sécuritaire naan la non euh, noo kii nga war a nangam nii nga war a taxawee nii nga war a assurer sa sécurité. loolu responsabilité état bi moom mooy jugé ne carrément man nang nii laay gérer samay frontières ce n'est ni à la Russie ni aux États-Unis d'Amérique dama dire que nii nga war a yore sa sécurité nii nga yoree nangam partenariat militaire dafa nekk au delà de loolu ngay wax wala boog en deçà de loolu ngay wax parce que bu nekkee au delà de loolu leneen parce que bu nekkee au delà de loolu lenn la mën a jur mooy tey jii par exemple tey jii ñun suñu armée ku nekk xam nañ ne carrément maîtriser guñ ñu les technologies technologie de guerre léegi yene yene armement yi maîtriser guñ ko mais tey jii boo amee ay partenaires yo xamantene ne tey jii mën ngeen a signé ay convention ñom ñu leen di fournir ay armes di entraîner seen ay soldats ça n'a rien à voir aussi ak ki nga xamné day gérer sa sécurité Beaucoup. ñun suñu ay sécurité dañoo dem daal di kay jébbal ay français jox koy israélien ñuy gérer suñu ay mbir te loolu war loolu lan moo ko gën a garaaw lan moo gën a dangereux loolu

concernant nag wàllum affaire li nga doon na ay 7000 nangam budget leneen li du kiiwut xam nga tey jii Amérique sax dañuy leb d'ailleurs c'est le plus grand man je peux dire débiteur du monde maanaam ñoom ñoo dàqal leb ci kaw suuf Amérique ñoom ñoo dàqal leb ci kaw suuf ba léegi dañuy leb donc leb ça n'a aucun ça n'a aucun ak li ngay wax noonu naan ay boo demee ba mënal ngeen seen bopp ak nangam Macky Sall nous a aidé avec une de 18 000 18 000 milliards yu non lan la c'était des projets projets yu non lan ak lan la woon fan lañ investi xaalis naka luñ ko utiliser ba mën tax tey yenn ci ay projets yu mel non réalisation yu mënta am te 18 000 milliards Macky Sall bu la ne injecté na ci PSE bi wala ci différents programmes yoo xamante ne moom la doon fas yéene yore réew mi te pourtant à la base y a rien yoo xamante ne mën na visible exemple je te donne l'exemple de Prodac quatre dak nga war ko liggéey mais ben rek mom mo ci fonctionnel xawma ñaar mais loolu ça cause problème donc où sont passés nos 18 milliards lolu kese la amul lum lay wax. kantaana bu buma revenir à la dette toujours moy sant il ne signifie pas que né da ngay amal sa bop da ngay mën lepp non lolu jotou jotewul asmaari jotewul dé ça n'a rien à voir mën nga am say ressources toujours mais soxla di dem lebi jotewul parce que États-Unis ñu ngi ni am nañ lepp France am nañ am France n'y a rien du tout parce que lépp lu ñu yor Afrique lañ ko jëlee mais téw teewul ko continuer di dem di lepp yeneen pays ak yeneen ak yeneen noonu mais naka ngay lebee bo lebee bu paré yan charge la wara a tegwaat ci sa ndod kan moy supporter charge yooyu état est-ce que dina ma arranger arrangé de sorte que par exemple leb bi duma mën impacter ci situation sociale population bi à savoir le vivre ak yeneen ak yeneen ak yeneen c'est ça la vraie problématique gis affaire bi compliqué wul yéen da ngeen di naan non yéen wax ne yéen mën ngeen comme que mën ngeen a defee nangam déedéet États-Unis au Japon même y a des Japon lu muy industrialiser industrialiser lépp ba mën na mën na mën na sa dëkk bi en même temps 10 ans la la wax de dañuy continuer di leb jotewut mais lu ñuy lebee dañ koy xam. français lu mu dem lu mu def def def def publicité au Rwanda du té Paul Kagame élé les Rwandais am sen fulla ak fayda xam ce qu'on a vécu avec les Français même si nous avons pardonné nous ne voulons plus les mêmes erreurs amul ben ci conflit booy dugg ci àdduna te doo les Français ban effet lañ fa am rambaaj wuruj seytaane lii mooy mbir mi lii kese la de quand daara man sa ameetoon mais mais dama leen di comprendre quoi boo leen toogee naan France laa gëm ak cest à mais dama leen di comprendre loolu c'est normal ñi nga xam ne ñun ñooy vivre ñun ñooy subir ñun ñooy subir ce que la France les dommages que que la que la France nous est de nous causer entre la France France dafa war a xool toogaayam ak Afrique daal di leen bokk et ce que Macron n'a pas encore décrypté. ñeneen ñi ñoo ngi ko koy artu di ko wax ne ko carrément fii nga jëm baaxul ci ñun baaxul pour nos intérêts certes on doit renégocier xool franc africain yi fan la ñu toll ñu daal di waxtaan ak ñoom nouer des alliances yoo xamante ne day mën a kii te ñu bàyyi ingérence bi ñuy def ci seen i nguur. lii képp la. Kanda nag bon vous allez dire que c'est-à-dire nangam a nangam mais xëy na peut-être bon ñun jeunes Sénégal nous avons nos raisons nous avons nos raisons ñun c'est pas pour rien que laa la wax de ñun tey jii man. Bassirou Diomaye Faye bu jugoon ne carrément damay dem nuyu ji un partenariat de partenariat avec la Russie parce que Serigne Touba dama koy nangu parce que am na ci pleinement la légitimité te choix bu mu ne choix bu décisif la te xam nga les conséquences parce que tamit non état ne va pas s'engager à travailler avec une puissance sans pour autant mu mesurer les conséquences ñun nag xëy na peut on n'a pas su tirer la leçon avec la France ba ñu gis ne moo ñu dugal lii tey mais boo demee. entreprise buy priorité nangam les onze accords secrets dama lay ñaan ngir yàlla nga dem tatwaar ko nga xool est-ce que c'est normal en tant qu'un pays comme la France nga daal ñëw ci réew ba pare am sañ sañ daal di yor sa dicton bu toll noonu ne carrément nii laa lay yoralee sa réew ba pare te lépp looy def man maa ci priorité man maa lay gérer nangam man maa lay gérer nangam yow mi sax maanaam man bu ma yoroon sa kër laa wax de yow nga moom sa biir kër nga nekk fa ak sa njaboot man ma daal di ñëw dugg aw ma sañ-sañ di la ko dicté waxuma naa nekk nga moom nga moom waxuma naa nag nga moom sa kër war a am war a am sa ndogal keneen ñëw di la ko defal